kontaan ànd ak yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ñuy topp ci site internet bi di Darmanko TV ziaraat bu baax a baax sëriñ Serigne Mountakha te kay ñaanal sunu borom yàggal ko fi te mu wér lool noonee la ñuy ziare xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal di ziaraat mbokki Touba ci màggal bi nga xam ne ne moom la ñu génn te ñaan lépp lu ñu fi ñaan rek yàlla na boroom màggal gi nangul ñu ko ñu teewe ko ay déwén yu baree bari tey nag ngeen gisatuñu fii ñu àndatee yéen ak uh, télévision Darmanko TV tey ñu ngi fii ci Touba Touba Njaxumpa uh, li ñu fi boole di association bi nga xam ne ñu ko door muy association na naari xamante ñu bàyyi soxna si ñu taxawal rek mu daal di nuyoo daal di ñuy dalal daal di présenté wax moom mooy kan wax ñu lu waral tamit tey bi la jataay soxna ndey ñu ngi lay ziar bu baax bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Darmanko TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziare di am kontante ak mbégte ci teew bi ngeen fi teew di wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te ginnaaw bi ñu passé si màggal gi si jàmm ak salaam tey nag ñu ñëw ci bisu bi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi koy waajal euh, muy association naari na nu xamante ñoo moo waral tey ji suñu jataay fii nii. Mhm. naka ngeen waajee bis bi. waa bis bi xanaa kontaan rek ak bi ñu ko déggee ba léegi. bi ñu tëralee programme bi ba léegi euh, nit ñaa ngi ciy def lu ñu mën di dem ak di dikk yëpp ku ci mel ne ki nga xamante ne mooy Mansour Diagne nga xamante ne moom moo yor programme bi moo créer association bi ba tey jii ñun ñëpp ñu bokk si euh, moo waraloon ñu jàpp jour bii nag tey xam nañ ne xat na lool mais comme que dañoo def ne association naari nanu xamante la Euh, nga euh, moom lañ euh, tudd defoon bis bi moo taxoon ñu ñu invité leen tey fii. lan lan lu mën a xaar ci programme bi tey. waaw programme bi nag liñ ci mën a xaar bëri na ndax dañ ne woon bu ñu xëyee dañuy jàng alxuraan ñaanal sunu maam yi su ñaanal way dawli yi leen jullit yëpp. daje fii pour xamante la association na nanu xamante la kon comme que ñu ngi déggante ci groupe bi rek war nañ mën a xamante ndax ñu ci bëri dañu déggante ci groupe bi te xamante kon il faut ñu tassé def ndaje mu melni pour ñu mëna xamanté kan man suma ma asu dina xam ki kii asu asu bu yang nday dina xamné ki moy sona nday mutula lool mo taxone ñu jappone bis bi tay kon dal tay mën nañ japp né nar yépp dajé nañ fi tay nar yépp inshallah dañ danañ fa ñëpp inshallah aha na dañ lay baye nga def deuxième attaque bi rek ci kanam wa d'accord wa ndax instant bi dañu nek ci wañ bi di préparer bernde ak yoyu motax xamna wax ji du gëna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 بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراسقنا من الشاهدين اللهم ربنا تقوى منا قلم القرآن ورجاء أن ما كان في تلاوه من سهو أو نسيان فاكتبه من على التمام والكمال والمهات من كل الهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواقينا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مهديا أقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسمع والبصر والألمان ولا تقبلنا بالسر والشقاوة والدار والطهيان ونبهنا قبل المنايا من القبل وكسلان وأمنا من أصحاب القبر ومن سوء المكرونة والكردان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعطيها رقم المنان ويمن كتابنا ويسر حسابنا وساق مسانا وسند وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسجنا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام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 وارحم جميع أمة سيدنا محمد بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام شفيئا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار ستر عجابا وإلى الخيرات كلها دليل إمام بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا من آيات القرآن ونجنا من نار بكلام القرآن أدخلنا جنة من القرآن وارفع درجاتنا بفضل القرآن وكفر عنا سيئاتنا بفضل القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بلغ سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا وشيخنا قاشة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقيسه سنة ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط من من علمه إلا بما شاء وسع كرسي وسماوات ربنا آتنا في وقنا عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا وصلى الله على سيدنا مرسل جبا waaw asalaamaaleykum ñoo ngi ñëpp di leen siyaare bu baax di leen xàq di ñëpp àq di leen ñaanal sàkku ci yéen ñaan di ñaanal sëñ mu Mbàkke suñu borom yokk ak wéram ak manam ba liggéeyal maam ci yoonam wi ak waa juróom yi bu tedd ya suñu borom man koo may ko mu àggale war sëñ Tuubaa di nuyu kilifa yëpp nag di jiite ci nuyoo bi kilifa ak jataay bi nga xam ne mën na ne ah, ci famille bi nekk nii ñi ko ci féeteeg mag bëreetul kilifa la ci ca ku nekkat xam nga ne ak bëggam lu baax ak li ci dox ko wax képp ñëpp xam nañ ko ndax néewaana ci yi xew léegi muy ay groupe boo xam ne ay kilifaa nga dem ca fekkoo ko fa ca bu fekkee lu ñu wax la mooy njëkk yëkkati kàddoom bu dee luy joxe kenn ko ca man muy sunu maam Ajaratu Fat Diagne di ko ñaanal bu baax su borom yàggal ko fi bu baax a baax tey ñu dikk ci këram waaye balaa loola ñu ñaanal ñi nga xam ñoo jiitu fay dawli yi képp koo xam rek yaa nga barsàq sun borom yokk say leer barke sëñ Tuubaa waaye di ci settee rakkam wala magam yoo xam ne da ko bëggoon lool mës a yëkkati kàddoom ñaan wala wax ci waxaale wu ko muy ma ajaratu maram te ngéej ñoo ngi koy ñaanal bu baax sun borom yokk ay leer ci barsax ya. yàggal fii mbokkam mi mu yàgg ko ñaanal xam naa nag waxtaan wi tàmbaleegul waaye nag am jàngal alxuraan bu pare ci mu nekk lu jiitu liggéey bi jamaa aja mag la jotaay bi yàgg gi du ko arrangé lool ñu bëgg rek incha allah moom mu yëkkati kaat yi nga xam da koy yëkkati su ko defee nag bu paree nag ñun ñu daal di tàmbali nag liggéey nga xam bu ko neexee dem ci ay itteem ilaa mu dem dallu ji ndax fii xaw naa tàng ca toogaay beet du ko man bu baax a baax bu ko neexee mën naa toogaat fii bu pare waaye bu ko neexee ma dem tëddi dallu ndax wax dëgg yàlla lii daa baax rek daa baax waaye bu ko neexoon mu toog fee ne am na ay sët dan ne ku am ko yónni loo defat laa neex te ñi fi nekk ñëpp ku yónni nga dem kon loolu sant yàlla bu baax a baax la kon maa Adja ginnaaw yàlla dogal na jàng na xat ba pare da nga yëkkat say kàddu yoo xam si ne da ci ñaax xale yi ñaanal leen ba liggéey biin ñu tàmbali su moroom teg ci loxo ndax ku ne xam nga ne bu fekkee ne lii gone rek moo ko man mag ñi moom yi seen wàll ci lii moom mooy ñaan rek ak soññee képp ku am doom nga soññ ko liggéey bi mu bokk ci ndax liggéey la boo xam si ne ci kanam tuuti incha allah bu ñoom Mansour dikkee nañ ci leeral lu bari loo xam ne si jaar na fi ñenn ñi groupe bi yëg nañ ko am na yoo xam ne kenn yëgu ko yoo xam ne ñoo ngi jëm incha allah yëpp rek su Mansour ñëwee ak ñi mu liggéey bi nañ ci leeral lu baax a baax incha allah kon maa ajaay bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala yéen mbooloo mi toog maa ngi leen nuyu man Adja Faty Diagne ci barke Sëñ Touba. barke si Mountakha mi na yaakaar barke màkkaan min naga ma demoon di leen ñaanal di leen nuyu fan mu gudd ak jaamu yàlla képp ku fi ne la nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko sëñ Tuubaa defal di leen sant di leen gërëm fi may tàmbalee ci wax gi sama mag ji aji maram jaañ yal na ko yàlla xare ak taar nu ci barkeem te yeexan mook sama mag yam fa fekk ak ñu ko fa fekk tàmbale na ci nuyoo bi man Mansour mi nga xam ne moo bi lii bàyyiwuma kenn yow bàyyi Modou mënu maa lim nag ku lim joom maa ngi leen di sant di leen gërëm te yàlla yàggal seenu taxawaay lu ngeen ci yëkkati yal na ko sëñ Tuubaa yàggale man de lu ngeen nekk lu ne maa nga ci ak sama njaboot du groupe bu gone de waaye góorgóorlu leen ndax lii boole bokk la ndax danga nga fi gis koo xam loon bis bi koo xamoon bi loolu wee may sant yàlla di sant Bumba mi nga xam ne mooy sama taaw bu baax a baax di ko ñaanal di ñaanal rakkam suñ talaa joxum ba borom jëf ci bari ci te wax ji néew rakkam samam caat munu maa lim maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant seeni soxna bayuma kenn muy Fatou Diagne mi fi jiitu ak abi mi topp ci moom nday talaa soxna talaa di ñaanal nag sama njaboot ami mi mag matu mi ci topp di leen ñaanal Binta Fatim Diagne bàyyiwuma kenn di sant waa kër gi ñëpp di sant samay koro maa ngi leen di sant yéen ñëpp na ngeen ma baal baal naa leen jërëjëf jëf yal na yàlla yeggale jataay bi man day kër ma jooje ga ma bokk gañu naa ca te képp ku ca gañu ànd na maa yow njoxum pa nga bokk gañu naa ca ku ca gañu ànd na maa yow naameen nga bokk gañu naa ca te ku ca gañu ànd naa ca yow yéen it gañu leen te li ngeen nekk lu rafet la bu leen ci kenn delloo gannaaw barke sëñ Tuubaa jërëjëf maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp. jërëjëf macha allah kon ñu dégg ñun ñëpp rek ni mu ko waxee moom. leeral na taxawaayam bu baax a baax moom nee na moom fa mu bokk moom gañ gañ bu baax kon ñun fi mu bokk lii la nekk loo xam ne si maanaam dañ ne famille waaye lii du famille askan la xam nga famille mooy ñu bokk sant bu man bu fekkoon loolu man jaañ laa man ba ma sant man baabu kon du doo fi ñëw kon ndax ñi joxoon ba sax ñu sant jaañ kon ku ci nekk da ngay xool fa nga bokk rek nga dem ànd ak ñoom waaye lii moo mën a boole sant yëpp sant yëpp la mën a boole ndax nekkatul ay tour de famille ak ay sëtin diw sàngam lu mu doon aw askan la aw askan askan nag sun ko xasse wax manam kep ku ca bok ak no ca bokke xadi gumbale sama gora ma nga ca faral sant naa ko bu baax jeen jëf waaw jeuf ma ja waaw bu ko defé ñoo xamné kon lolu lu am solo la bu ko defé manam ñu xamné bok gi bok gi ci liggey bi nekkul ne ay sant lay topp waye aw askan la wo xam si ne tata tala loxo ñëpp rek ni mu amee tey jii ci kër Madia faj Diagne ñu jaar ko ci nijaay Mourtala di nuyu baax nijaay góob mi nga xam ne kilifa kër gi ëllëgër si biir day am fa faneen incha allah loolu nekk ñëpp xam baax a baax ca xam ne nekkul mbooloo moo xam ne comme ñi ñëpp xamee rek mbooloo yoo xam dañuy jàpp bis dajee joxe seen i bernde lekk naan déedéet am na loo xam ne tey jii bu ñu demoon maanaam tey jii maanaam ba dajale addiya yi kenn ci mbooloo mi da dekk jékki-jékki da daal ci kawam dañuy fomm bis ba jël loola jox ko ko loolu moom mooy liggéey bi ñu xam ko bu baax xam ne maanaam bu ndewoon tey jii dajale na juróom fukk junni téeméer junni ah màggal ba suba kër kër diw la ñu dem ba ca màggal ga bis dal mbir dar ci kaw nit dañuy fomm bis ba jël loolu jox ko daal ak dimbalee ndax daje gi baax na waaye dimbali mu am solo dimbali am solo la ndax àdduna bi neexul ku nekk la bëgg mënoo ko waaye suñu boole li am incha allah ku bëgg di dimbali mën mën ko dimbali kon ñoo ngi sant bu baax a baax di wàccee kàddu yi ba ci kanam tuuti incha allah bu mën soo ñëwaatee ba tàmbali waxtaan yi nekk yëpp na leen incha allah jërë ngeen jëf assalamualaikum warahmatullah rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal jamm té diko ko ci yeen di ziaré bu baaxa baax Cheikh mohammed muntaha di ñaan suñu borom yagal ko fi ak wër ak jabootu Serigne Touba gep non la ñuy nuyu jabootu mam Cheikh Ibra di leen ñaanal ñu yagg fi loolu te ak wër di am mbégte nag tey jii ci jotaay bi nga xam ne fi am na lépp rek ci jëm ci askan wi waaye lépp jëm ci lu baax waaye dañu nuyu bu baax a baax sunu kilifa yi fi teew ku ci mel ne Serigne Abdoul Aziz Amar ak El Hadji Diagne mi nga xam ne si wax dëgg yàlla ba mbir mi commencé ba léegi ñoom ñi ngi ci jiite ñu nag wax dëgg yàlla taxaw ñu lépp duñ def rekk même bu dëngoon sax danañ ko jubbanti ba mu kon ñoo ngi leen ziyaare bu baax a baax waaye di ziyaare bu baax baax waa groupe Darmanko TV di nuyu bu baax a baax Serigne Gora Diallo mi nga xam ne mooy caméraman nga xam ne léppam la bàyyi ñëw ànd ak soxna Kiné Samb macha allah Kiné moom mel na ne naar yi bari xam nañ ko waaye di remercier di santar bu baax a baax soxna Ramatoulaye Cissé moom it mi fi teewal 7TV ak Darmanko TV ak rakam maam Diarra ñoo ñëpp ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen sant waaye di sant bu baax a baax ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di sunu bàjjen di Baye Fall macha allah sunu bàjjen Ajaratu Fat Diagne di ko ñaanal bu baax a baax sunu borom yàggal ko fi tam am ba lim mu bëgg lépp sunu borom defal ko ko. di ziar ñëpp nag xam naa nag waxtaan wi ci kanam tuuti lay commencé waaye dañoo bëgg képp ku fi teew rek ñu jox la rajo bi nga présenté wu. ndax am na ñu fi nekk ñoo xam ne si maanaam gis nañ ñi fi teew waaye am na ñoo xam ne sax xamante wu te comme dañ ne naa maanaam naar yi nañu xamante xamante moo ci war surtout sax bis bu toll nii nga xam ne bis bu jafe la waaye di santaat yàlla bu baax a baax di santaat. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo waral liggéey bi waral turu yi kon nag ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal bu yàgg fi xam naa kon dañuy jox rek euh, présentation yi ñu commencé ko di jox Serigne Mourtala mi nga xam ne moom lañ ñëw këram di ko sant bu baax baax moom it sant soxnaam coonaay bi liggéey bi lépp rek wax ngeen ne xam ngeen ne màggal ba ca ginnaaw suuba ga moom jot amul waaye bàyyi nañ seen lépp ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ba nga xam ne macha allah eh, wax dëgg yàlla coono bi dem na waaye xam na ni ak mbokk moo leen ko jaral xam na ni lu baax moo leen ko jaral kon xam naa dañuy commencé rek présentation bi kenn ku nekk ñu jox la rajo bi ngir yàlla nga wax sa ak sa sant ak sa tur waajur ñi nga maanaam ñi nga xam ne xamuñu loon ñu xam la ndax buñ jógee fii rek maanaam mbir mi liggéey bi gën a yomb comme dañ naari nan xamante danoo war a xamante kon xam naa dañuy commencé ci Mourtada Diakhoumpa mi nga xam ne kërëm nañ ko joxe mu présenté wu wax moy kan ak fan la euh ñuy ñaanit suñu secrétaire bu ko mëne bind mu bind ko pour anka inshallah kon xamna naa ñu bàyyi sëriñ Mourtada. nuyoo bi sëñ Mountakha mbacké ak mboolem kilifa yi mat yëpp ak mboolem yoor di leen ak di leen baax di rafet lu baax macha allah liggéey bi parce que woote ñu wuy si la. woote yomb na waaye nag ñu wuy si la yombul eh, pour ñu gàttal rek dañuy sof nuyoo bi comme ni ko Mansour Diagne waxee eh, di nuyu suñu yaay Adja Fatou Diagne borom kër gi eh, di ko ñaar jàmm di ko sàkk si yéen ngeen xamal ne man la Mourtalla Diakhoumpa doomi Adja Fatou Diagne kër ma joojo ak bàyyi mant Mariam Diakhoumpa di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom jërë ngeen jëf